asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul cheikh Mouhamadou Moustapha moom cheikh Abdoul Ahad Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér soxna baali Mbacke moom soxna maam Fati Dendey moom soxna moom yi moom Serigne Touba Xaadimu Rasul mooy am mbégte di leen yëgal daara interna soxna Fat Sila Libaas daara interna soxna Fat Sila Libaas ngir jàngale alquran ak xam-xam ak yarub diine daara jooju nag jàpp nañ ko ubbi le premier marche incha allahu rabbi ñu di ko yëgal mbooleem koo xamante ne bii bëgg nga sa doom jàng alquran wala mu yaru yarub diine képp koo xam ne nag bëgg nga ca tàbbal sa doom mën ngaa woote ci numéro téléphone bii di 77 238 37 64 77 238 37 64 ak daaray soxna Fat Sylla Libaas jàng alquran mokkal ko am xam-xam yaru yarub diine man liggéeyub jigéen ñoom rek laa ci wóolu ci soxna Baali moom soxna maam Fati moom soxna moom i moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul daw leen gaaw yóbbu seen i doom balaa mbindu maa jeex tàmbali nañ ko nag le premier mars la ñuy tàmbali njàngum alquran ma wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.